man de du ma compagnie koo xam ne wax dëgg yàlla damay bañ a am ay problème de de de de parler français ndax du lu ñu nàmp ñun du ñu lu ñu nàmp de français gi ñuy wax nii dañu koo jàngal dong du lu ñu nàmp man na duma ci am complexe nag waaye nag dama doy wax ta taala rek ne ko grève de la faim jaru ko ndax boo grève de la faim maara day taani ba sa bakkan yem ca ñun parti ba fa lay yem man nag wax dëgg yàlla campagne mille 2012 bi dama koy teel a tàmmali parce que tamit bu fekkee ne taala tamit dafa bëgg a jël bakkanam bii rek teg ko ci xott gerte nar a grève de faim ba ba maar day taani am ci ñun duñu xamati fu ñu jëm balaa boobu numéro 2 parti bi jigéen ñi ñëpp xam nañ ne man muslim baa muslimeen na duma ma ko complexé léegi nag barki démb ba dégg naa ñuy bind ay journaliste di bind ne yenn politiciens yi sax balaa ñu leen di takkal ndombo tànk war nañoo mën a xool ndax mën nañoo exprimer wu ca français war koo mën a bind man nag la ma jàng rek ak la ma yaakaar ne moom laay dégg nit ñi di ko wax ci laay mën a dem ca tablo ba def ko ca ci bañ cee am complexe député ci assemblée nationale laa nag dinaa dégg des fois ñuy wax projet de loi ma yëkkati des fois ma wàcce des fois ma sànni sa sama grappe de sel maa nga dem ca tablo ba <laughs> Eh. taala silla taala silla lool moom neex naa bind ndax ku yàgg ak taala xam turam taala silla ma taala mane taala taala taala maa arrêté taalama ma ne ko taalama taalama arrêté taalama arrêté saa gereew taalama arrêté saa gereew ma ne ko taalama arrêté saa gereew ma ne ko taalama arrêté saa gereew defee defee saa gereew defee wala ko taala taalama taala taalama arrêté sa sa grève de ma ne ko taalama arrêté sa grève de faim message bu may yónnee taala rek mu xam ko dama koy bëgg a xamal ne ko na arrêté grève de faim bi kon taalama arrêté saa grève de faim ma ne la bato ma ne la bato ma ne ko la bato la bato paar la bato paar le bateau part ah Mously Costé <laughs> ma ne ko le bateau part Mously Costé déedéet déedéet waaw ah, të tëb naa de le bateau de damaa tëb le bateau de Talla part Mously Costé <laughs> ma ne ko le bateau maa maa saa grève de la bateau de taala part mus li arrêté les femmes les femmes ko les femmes de les femmes de de sa partie ma ne ko les femmes de sa partie <laughs> lii de xam naa bu ko taalee lii de ba gis ko dana nu muslim yi wóolu naa ko bu mu demee ba mënatuma bàyyi ko ak parti bi ma ne ko taala maa arrêté saa gërëw de le bateau de Talla par Mousti Costé les femmes de sa partie ma ko les femmes de sa parti mais les femmes de d'accord ma ko les femmes de sa partie d'accord ma ne ko les femmes de sa partie <laughs> d'accord ngir ngir ngir de tubaab la ngir ma ko ngir waaw les les femmes de sa partie d'accord ngir musli ma ne ko ngir ngir musli ngir ngir musli koste daala <laughs>